naataangoo way politique yi ak mbokku société civile bi euh, su ma wax ñaari poñ rek la bëggoon aborder euh ma jiitu fi wax ko sank le 2 avril au plus tard à 23h59 Macky Sall doit quitter le pouvoir tay gis ngeen ko teyoo assemblée bi nga xamné mo fi tay wane ni tay légitimité bi ñun ñoko yor boo jëlee liste bi tay tey force vive yi waxuma syndicat yi ak ñeneen assemblée bi mon jam ñaajo ëppul légitimité ñi nga xamné ne ñoo fi toog maam président moom moo ko jiite woon ëppul gëdd ëppul maxaama parce que du assemblée constituante fofu fu mu ñuy yóbbu mois le 2 avril au plus tard à 23h59 Macky Sall voulait en entre temps démissionner wut nguur gi côté politique bi force vive dans une jël responsabilité parce que suñuy qui suñu qui kenn sànni ko ci suuf souffre, dee pare pour organiser l'élection nous devons continuer di Macky Sall organiser élection nous ko conseil constitutionnel digalee

pouvoir public oui, assemblée nationale assemblée nationale amatul ben droit jël ben loi pour remettre l'eau en cause ça s'impose à Macky Sall qui doit sans délai organiser l'élection mais également ça s'impose aux autorités administratives comme nous ñu ko préfet sous-préfet gouverneur mais le ci que a yéeme moom conseil constitutionnel mi nga xam ne moo dogal bi mënatu ci problème beaucoup constitutionnel tranché nañu ko muy beneen muy conseil constitutionnel français depuis 1962 nous ñëwaat en 1988 ak 89 ak ci décision subséquente donc nous avons autorité de la chose jugée maanaam bu ñu technique. et il fait que conseil constitutionnel mënatuñ ci dellu di ci yokk wala di ci wàññi tey benn possibilité la am moom mooy mu wéyee candidat yi nga xam ne ñoo nous toog loolu du loolu kese article 92 pour doole bi di génnee moom mooy dafa ne ça s'impose donc autorité de la chose jugée bi daa am leneen bi nga xam ne def ci yokku moom mooy autorité mooy force de la chose jugée maanaam décision boobu day tënk amuñu possibilité loolu moo tax ñuy jot ni ndaam nee na day dem ñu ngi koy ñaanal yàlla teg ko ci yoonu jàmm mais bu jéemee ba élection amut ñu dinañ jël suñuy responsabilité teg nañ benn comité d'experts bi nga xam ne mu ngi ciy saytu et que sénégalais yi nañu dalal seen xel fii ñu mën a gérer état xam nu nation di doxee xam nu relation internationale yi di doxee ñoo fi nekk nañu jàpp ni du ñu tumburanke njiit kooku mooy pëj bu njëkk bu ci mujj moom mooy mbirum loi amnistie maa ngi koy fàttali sànq man nekkoon naa avocat wu collectif des victimes des violences électorales waaw ma tënk euh, ba muy serment maa ngi woon King Fahd Palace ci ngoon sa ba muy def cérémonie ci salle des banquets di fêté maag ba ma Diop mi nga xam ne yàlla na ko yàlla yërëm fan yi passé génn na àdduna papaay dem si yàlla Mamadou Diop ñu ngi woon ci cabinet doyen des juges d'instruction ci ngoon si Radisson mu ne déjjë na victoire am aux victimes des violences électorales te yéen a ci teg seen gër à l'heure du bilan moom mooy président bi nga xam ne moo ëpp passif qui violation droit de l'homme yi ci ji fi dee ci ngour mais li ci gën a yéeme boobu mooy ba muy dem alors que dafa waxone ne mandature am da koy teg ci viol ci contre impunité mu ngi teg loi bi nga xamné ne day assurer impunité mais lolu du sorti parce que ñun taxaw nañ pour xéx ko sur le plan international parce que bo leen liree ci statut cour pénal international fofu lay tëjee ñoo njëkk a signé statut bobu bo leen xolé ci préambule bi dafa ne Sénégal dafa am obligation bañ a adopté loi amnistie qui nga assurer impunité contre les crimes contre l'humanité On va étayer donc di leen jaajëfal ci déglu bi di l'oubli, wax ne na seen xel responsabilité vous ci merci maître on va laisser la parole au président Ali Mamadou Dia.